ñax jariñoo ngi noonu ñu ngi jar di ñaan loo ñaan doyul de Libidor nga am Libidor mbapat kat la doomu Kayar la ñax nee na pare na Libidor ñax jariñu fii ci Fass Ndiaga Thioye ak Fallou Ndiaye Libidor ñax jariñu waaye Riro Séras a ngi noonu arbitre bi suuf mbokk yi làmb mbokk wasaare mbokk kéwél yooyu ñu topp làmb tey làmb ngi nii de bu fekkoon fii rek la yam jeex na bu yemoon fii rek neex na billaay bu fi yemoon sax mu neex waykat ba way na ko Youssou Ndour yooyu eh, la roi mbalax nee na bu fi yemoon mu neex waaye bu yemoon ci Libidor ak ñàkk jariñ rek mu neex waaye bu yemoon ci Pape Thiam ak Douza rek mu neex Libidor ak ñàkk jariñu Libidor ak ñàkk jariñu ña ngay liwaatoo ñoom ñaar eh Libidor ak ñàkk jariñu Libidor ak ñàkk jariñu Libidor ak ñàkk jariñu mbër lan ay mbër lan de ay mbëri arène ay mbër yu ñu xam ràññee leen Libidor ak ñaq Libidor ak ñaq jariñu waaw waaw bu la neexee de bàkkul bam neex la Libidor ñaq jariñu door na ca bopp ba Libidor ak ñaq jariñu Libidor ak ñax jariñu ña nga ca géew ba dara amagul ay bërekat lan de ñax jariñu mbër la de waaye Libidor doomu Grand Yoff bi doomu Kayar bi ñax jariñu nga bàyyi ko ci caaray Libidor ak ñax jariñu Libidor ak ñàkk jariñu ba tey dara amagul Libidor ak ñàkk jariñu Libidor ñàkk hey bi combat arbitre waaw waaw foog arbitre wax ak ñoom de avertir leen bëriwul kay waaw waaw avertir leen dara du la fekk de Libidor ak ñàkk jariñu Doudou Sané ngi noon di dogale rek waaw luur la de door ak ñàkk jariñu Libidor ak ñàkk jariñu Libidor ak ñàkk jariñu ba tey dara amul de ee Libidor daw doon jàppante ñoom ñaar daw doon jàppante ñoom ñaar Libidor ak Ñax Yaram jàppante nan de bàyyante waat Libidor ak ñax jariñu jàppante jàpp ngeen mu bàyyi Libidor ñàkk jariñu ña ngay leewaatoo ñoom ñaar Libidor ak ñàkk jariñu ña ngay leewaatoo bas bilaay di ngeen bëre mënul ñàkk de bëre tax ñu woo fi di ngeen bëre de Libidor ak ñàkk jariñu Libidor ak ñàkk jaruñu daw na jàppante Libidor ak ñàkk jaruñu Libidor ak ñàkk jaruñu door ak ñaq jariñu Cheikh Tidiane ñaa ñaar de waaye ku jàpp boo songee da ngay génnaat hee Libidor ak ñaq jariñu ñaq jariñu daw na songu génnaat Pape Thiam Doudou Sané ngi noonu ci ambiance Cheikh Tidiane Niang ambiance eh Doudou Sané Cheikh ku ne na moom la waaye dina leer léegi ci kanam dina leer xëjaruñu ak Libidor ña xëjaruñu ak Libidor ña xëjaruñu ak Libidor daw nañ jël plaqué plaqué mbot plaqué nañ ña xëjaruñu ña xëjaruñu mbot na ko ñaq ak Libidor waaw bëri nan ay bërekat lan dañuy bëre ñaq ak Libidor ñaq plaqué na mbot mbot encore mbot ñaq jariñu mbot na Libidor mu jël tànk ba bàyyiwaat hee ñaq ak Libidor ñaq ak Libidor war na la ndomba ñaq war na la mu mbot waraat na la ndomba la penalty mu rëcc génn waaye ñàkk jariñu lim def ni lan la yoo ñàkk jariñu Libidor ca ñàkk ak Libidor ca xabal la def mu bañ ñàkk jariñu tegal nañ la sës génn na ci sës ba waaye lii booy bëre waay ñàkk ak Libidor ñàkk ak Libidor seen bas lii mooy bëre exit noo bi noonu ñàkk ak Libidor booloo mais Fallou lii mooy bëre Fallou. barke Rasulullah damaa kontaan. ñàkk jar ñu bëre kat la ñàkk dafa bëre ba sama xol sedd. li bi waaye kenn du li bi doon. ah non li bi doon naanaan la. ñoom naanaan la mais mais bu forcé ñàkk ñàkk daan ko de. mais eh, war na ko ndomb mu génnaat ci. war na ko ndomb mu génnaat ci na def ndànk. li boo lamb ko bu ko forcé mu daan ko. ah li boo lewul bëre naanaan la. naanaanu bëre kat la naanaan la. laa ilaaha illallah. ñàkk ak li bi door. Boy Lo. Cheikh Tidiane Niang lamb ji tey tey lamb ji mburul waaye Cheikh Tidiane Niang ak Doudou Sané man loolu lay xaar ku toog sama place Cheikh Tidiane Niang ñaq jarañu li bi door ñaq ak li bi ñaq jarañu ñaq jarañu ak li bi jël na ko daw nan génn saako ya cey ñàkk jariñu cey bi combat ñàkk jariñu Libidor ñàkk jariñu ak Libidor jàppante waat nan waaye naka jërëjëf li mu daal bu sax neex na combat bu neex lan bëre ay technicien lan excellence sumeeku na bàyyil ma xel excellence Basiru bàyyil ma xel excellence jël na tànk ba ñaq jël na tànk li mu door ñaq jar daanu na ñaq jar ñu daanu na da doon tante action far daanu ñaq jar daanu na da doon tante